لي سكينة بكل الجنة من داري ngi ziyaare bokki taalibe bi di jokkoo rek ay kàddu yoo xam ne dafa bàyyi ko ci sunu kilifa Cheikh Mamadou Mountakha Cheikhoul Bassir xalifa général di ko ñëpp di ñaanal mu yàgg fi te wér te àggale ay yeneen ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi ndigal loolu nag dafa jaar ci sama jëwriñ sëriñ Moussa sëriñ bi waxoon ne nañ jotli ay kàddu yoo xam ne day jëm ci jéem a leeral rek lenn ci doxinu kër gi ci weer yi nu dëgg dëgmal muy weeru koor yi incha allah ñu xam weeru koor yi itam ni ko ni ci lislaam ba noppi xam it weeru koor bu Serigne Touba daan dundale ak fi mu jaar waaye ñu xamit weeru koor ak Serigne Bassirou ak liggéey bu réy bi mu ci doon liggéeyal Serigne Touba di ko ci defe ci barab boobee di njaareem nga xam ne wala ko Serigne Touba daan defee gannaaw Serigne Touba ab diir ba si Amadou Moustapha jóge fi Serigne Bassirou delluwaat fa di dundalaat weeru koor wa ci njaareem na ko Cheikhul Khadim daan dundale Serigne Touba ginnaaw sëriñ Basiir itam njabootam gi sëriñ Moustapha wutu sëriñ Basiir ci liggéey booba di ko taxaw na ko sëriñ Basiir daan taxawoo ba na mu yokkoo ñëpp gisoon ko ginnaaw sëriñ Moustapha itam saamal Muntaxa mii diiru fukki at bu jëm dugg fukki at ak benn boo xam ne ginnaaw sëriñ Moustapha la moom mu taxawoo ko di ko saytu di ko yàkkali di ko dundal lépp di rafet ba ren jii nag liggéeyub sëriñ Touba bi dolli ko ci sëriñ Mountakha mu war a taxawu liggéeyub Serigne Touba bépp nag boole koog liggéey Serigne Bassirou ba mu yoroon ci biir lool nag Serigne Mountakha moom xalaat ne ñaari liggéey yëpp dañoo war a ànd dox dara waru ca des ginnaaw yëpp war a ànd ñëpp ànd di ko di leen dundal yëpp moo taxoon moom mu gis ne liggéeyub Serigne Bassirou ba mu doon saytu ci njaareem. njabootam gii nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Basiiru ñuy njabootu boppam di jëwliñam ci liggéey bi mu jàpp ne kon la ci ëpp da leen koy taxawaloo ca njaareen te moom itam mu dolli ab taxawaayam fii ci Touba ak sëriñ Touba gi nga xam ne sëriñ Touba dafay nekk ku ne xam ne sëriñ Touba ni Touba demee ci moom léppam tuubaa ñor ko ba lu ñuy xool ci sëriñ Touba ci Touba lañ koy njëkk a xool luñ cee dolli dolli ko ca donte njaareem am na cër bu rëy ba mu am ci Serigne Touba itam Serigne Touba daan ko fa def nekk fa lam fa nekk liggéey fa lam fa liggéey Serigne Bassirou doon ko dundal Serigne Moustapha dundal ginnaaw Serigne Bassirou ba dénk ko Serigne Mountakha Serigne Mountakha di ko dundal ba ren Serigne Mountakha nag am yéene yi lépp ànd dund liggéey Serigne Bassirou ba ci njaareem ci Serigne Touba la jëm muy dund nam daan dunde liggéey Touba bii moom Serigne Mountakha mu am yéene taxawu ko ba yàkkalil ko Serigne Basiru ci biir kër Serigne Touba itam yoo xam ne liggéey bi Serigne la boo xam ne moom sëñ Mountakha daa gëm ne lu mu ji def sëriñ Basiru la koy defal loolu nag la bëgg mu leer nun ñi nga xam ne nag nooy waa daaray boppam man itam ginnaaw dama bokk ci jëwriñ yi muy yónni ci daara ji di leen jottali ay ndigal léeg-léeg ak di leen jottali ay kàddu mu nekkoon kàddu yii ci ñooñu la jëm ñooñu nag ñaar rek lañ muy ñi nga xam ne dañoo war da leen daan jëlee Tuubaa gii ñu dem njaareem ñuy saytu liggéey ba te buñ masaan demit sëriñ fàllu mooy jëwriñ ju mag ja ndax bésu kumte bi sëriñ fàllu daan dem ci jumaa ja fas koor gi dellu siwaat ci sëriñ Muntaxa di taxawu fulk bi di taxawu lépp kon sëriñ Muntaxa wax ne mboolem koo xam ne da nga daan ànd ak moom mu daan la yóbbu njaareem ngir nga taxawu ji liggéey ba ñëpp dañuy dellu njaareem taxaw ji liggéey ba nañ ko daan taxawoo moo wax ne taali bi boo xam ne danga am addi joo daan andi ci koor gi ngir jëmmi sëriñ Tuubaa jëmmi sëriñ Basiiru ngir dundale ko weeru koor ga toll ci ka am ak ginaaram toll ko ci toll am gàttam lépp loo xam ne ni da ko daan andi ngir jàpp ne lii kumte la wala ndogu la wala lu jëm ci luy dundal weeru koor gi la dañ daan ko andi njaareem sëriñ Muntaxa mu wax ne ñooñu xam ne lañ daan andi njaareem dara du ci soppiku dara du ci jàdd noonu lañ koy yóbbu njaareem buñ demee fekk fa Serigne Fallou moo ko fa nekkal ñu teg ko ci loxoom lépp Serigne Fallou dellawaat ko ci bis dellowaat ko ci kër ga dellawaat ko ci weer wi ba la daan dox dara bañ caa ko dara bañ caa wàññi ko moom itam bu nekkee fii ci Touba dundalal fi Serigne Touba rek moo ko fi bàyyi te dundalal Serigne Touba gi itam daa gëm ne Serigne Bassir la koy defal kon ndax fu mu nekk Serigne Bassir la fa nekkal. di ko liggéeyal ci biir toolu Serigne Touba bi yooyu la waxoon ni dafa bëgg ñi ko séq xamee ko noonu ñi koy dégg it xamee ko noonu waa njaareem it xamee ko noonu gannaaw sëñ bi de bu masaa weer bu ñu séentu weer wi wala ba nañu àgg ci loolu ba desee ñetti fan ne leen ñi tàmbalee roñu di dem ñu yor bagaas yi ñu tànt ci biir kër gi ñu yor jur gi ñu yor dépense ñëpp dañuy dem ku fa ku daan andi itam moo xam sa gàtt nga am wala sa ginaar wala say kumte wala sa sugar wala sa tàndarma foo waaye masaan mën a jógee ci réew mi bitim réew daan ko yër sëriñ Muntaxa ci njaareem mu ne la ko defal ci weer wi sëriñ Muntaxa nee na ñooñu nañ ko yóbbu njaareem gañ ko daan yóbbu lañ fa daan fekk lépp dañ ko fekk dañu fekk sëriñ Touba dañu fekk sëriñ Basiru danañ ko fekk sëriñ Moustapha Basiru danañ ko fekk moom mi moom moom di sëriñ Muntaxa ñooñu ñëpp nag sëriñ Fàllu nekkal leen fa ak njabootam nga te bu ne njaboot nag mooy tudd Serigne Isaka Serigne Moussa ak njaboot gépp ñi daan ngànk koor ga nekk fa ci wetu Serigne Mountakha noonu la ñuy nekkee ci wetu Serigne Fallou lépp dox nam daan doxee dara bañ caa des ginnaaw dara bañ caa manqué Serigne Mountakha daal loolu mooy yéeneem loolu mooy pas-pasam lépp ànd dara bañ a dox ginnaaw bañ a des ginnaaw dara bañ a manqué te loolu mooy fu waaye daan taxaw nga taxaw fa lu daan dox mu dox moom nee na ña nekk. doy nañ ko ci sëkk jëfe ñor na ko lool mbirum sëriñ Basiru bi mu yàgg taxaw yàgg ko ànd ak sëriñ Basiru mu ñor ko lool waaye nee na ñam ko ñu ngi koy taxaw loo itam dañ koo doy lool te moom itam bëgg yàkkali rek bi liggéey bi yàkkali ko ci boppam bëgg lépp ànd lay nekk njaareem dox na mu war a doxe tubaa dox na mu war a doxe mu taxaw lépp di jëwriñu lépp fu ci ne ay jëwriñaatam nekk fa bu nekkee Touba ay jëwriñam jëwriñaatam nekk njaaram bu nekkee njaaram ay jëwriñaatam nekk Touba waaye lépp ànd dox daal mooy yéeneem laneen lu ci des nag ak num ko xalaate ak num ko bëggee leeralewaat dana ko leeralal boppam wala lu mu ci yónneewaat ñu gën koo leeral waaye fii ñu toll daal lii la waxoon ne ñi ko war a yëg nañ ko yëg te ñi ko war a yëg mooy ñi doon seqal liggéey bi taalibe yarul liggéey ba ci biir dëkk ba ci biir kër gi ci weer taalibe yi Serigne Bassirou yi nga xam ne dañ daan jógee ci ci gox yëpp ci Sénégal dafa indi seen i kumte loo xam ne barke seen barkeelu la ci koor gi nee na ñooñu nañ ñëw nañ daan ñëwee indi lañ daan indi fekk fa ñu fa daan fekk. ñi ci des itam ñoo liggéey bi danañ fa nekk lu ñu fa indi danañ ko seet nañ ko doon seetoo ba delloo ko fi mu ko doon delloo mooy defar ko ba mu baax ba taa gan ña fay ñëw taalibe yaag ñëw ñëw ñëpp ku fa ñëw. fekk fa teraanga ji ñu fa daan fekk dara ba jaamanke loolu sëriñ bi waxoon ne ko ñëpp yëgee noonu lu ca war a dolli ko nag dana ko ca dolli wala buñ ko ca war a dolli dolli ko ca kon sëriñ bi nee mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen xamal ne tolluwaay foofu la toll mi ngi baalu ñëpp di jéggalu ñëpp waaye tàllal loxoom rek fas yéene nag ñëpp liggéey bi dara bañ a des dara bañ a sooxe dara bañ a taxaw bañ dese cee ngërëmul sëriñ Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatal minna